waaw ma ne ñun ñii nga xam ne ñu ñoo ànd ak Amadou Ba yow jotu ñu laajte am nii ni ko am yow qu'est-ce qui se passe mais am loolu mooy pro problème bi. Naby Vision. mais am nit bi ñuy wàccaay di di jóge fii di yëgër yëgëri Amadou Ba pour ñun bu ñu ñëwee da ngay waxtaan ñun ci débat d'idées waxtaan ñun ci xam-xam mais am nga ñëw mel ni ab Ouzin tam nekk fii naan da ngay joxe ay conseil am réew fi mu toll nii jox soxlawuñu ay conseils am boo bëggee opposition opposition Pastef doo nekkul nii ngay doxalee ñëwal nga teg seng-seng. dugg ci dëkk bi li Sénégalais yi jàngonteel ci ay métti nga koy génnee teg ko di ko waxtaanee indi xam-xam indi ay solution mais am nga ñëw fii naan na ngay joxe ay conseil am ñu solo ñu conseil waaye am na tamit nag am non te yow da ngaa weere am barki Rasulullah da ngaa weere ngaa ñëwee neneen dul nii ñi nga ñëwee baaxul affaire bi amul xam-xam amul débat yi rek ñu dañoo yuuxu ba sonn te loolu sagal noonu mais defoo fa dara bu nekk léegi mu nekkuloon taw fayax yi ma fay 1500 yi du ma ñëw te beneen yoonatee moom xala boo fi indiwul xam-xam am nit balaa ñu am di leen siyaare bàyyi na ngi si jàmm baax gars nañ leen wax suñu mbokk mii mooy suñu maam Amadou Ba mii suñu maam la ma ne giñ ñaa ci yàlla ñu la topp soxlawuñu la sa xaalis la lekk. ndax bu fekkee dëgg rek la yàlla bëgg a nit ki mënut a am juróom benn fukki at ak ñett 63 ans 2025 nga am 64 ans di xëccoom réew xam nga ne ndaw yeew na ne nañ jar ay ndaw la soxla ci réew mi ndax yàlla saa buy yónni ay ndaw lay yónni sunu maam nga nag bëgguñu gaay lekk sa àll te ñi la topp ñëpp gëmuñu la xam nañ ne milliardaire nga ñu bëgg a lekk li nga yor bañal Naby Vision demal toogi ndax mënoo màggat ba booy dox mel ni ku sol ay xeer sa tàll yi di weng bëgg a ndaw yi Sénégal yi loolu attanoo ko de yi endurance bi yor maam booy attanoo ko demal nga yebal sa doom mu ñëw am nga doom ju mag joo xamante ne moom ñuy yor réew mi parce que ñoo maas yebal ko mu ñëw jàkkaarloog ñii ñii li ñuy daw attanoo ko da ngay gaañu te da ngaa feebar te bëgguñu nga dem bar saax léegi dañoo bëgg nga yor course gi ñaanal ñu ci réew mi ndax yow yor bari nga xaalis. ndax képp ku yoroon benn poste responsable ci Macky Sall da ngaa war a ñëw rendre compte sénégalais rendre logo compte sénégalais gaay yi bëgg a lekk li nga yor dañ lay nax sunu mbokki pël yi nañ leen wax ak suñu mbokkum pël mi muy maam Amadou Ba dañ leen ko wax dëgg de mënut a yor réew mi de 64 ans lay am si de màggat na de dafa màggat ba daanaka buy dox day weng ma mel ni ko soli xeer bëgg naa da nga bëgg yor réew mi gaay yi dañ lay nax gëmuñu la boo xoolee démb programme bi mu amee bi nga dawalee taxaw oto bi gaay dañoo daw naan jox ma jox ma dégg naa ko naan joxeñu xaalis ay kab la ñuy jox kon ñi la topp gëmuñu la ñoom ñëpp gëmuñu la ay daw làqu lañ de sa xaalis la ñuy lekk Ablaye mbay peex ak gaa yooyu lekk nañ li Macky Sall yoroon bu Macky Sall génn réew mi ñooy ñëw ci yow bañal bañal yoral kurus gi ñaanal réew mi lu weer lañ lay wax de <laughs> waaw baax na. Pastef <laughs> koo xam ne léegi mu retraité am na soixante-dix <laughs> yooyu Sénégal am na opposition jeeg jeeg di dox di riigu wut wut comme ku njàppataan barki Rasulullah parce que ñooñu naan cinquante ans rek bu fekkee genre genre kanam yii genre xott yi genre deux siècles deux siècles siècles jomaa day jël Sonko ñëw jël Sonko jëlaat Jawa ñëw jël Elmar yi jël Pape jël wala garde nyum soog boobu ñoom moomu ñoom ñëpp ay jël fekkee daaru ñoom ñoom mbiido mbiido parti bi mbiido mbiido mbiido ndafa yóbbaale la la ndafa ndafa dalaa yóbbaale de bi nee na nag ay biir de est-ce que yow parti bi mënoo ko yóbbu Guinée nga dem xeexal Doumbouya moo gën a yomb de nga gëj élection foofu de mais baax na yéenay créé parti rek mais baax na élection député yi parti yëpp dina tas. waaw kon léegi carte bi leer na. Naby Vision. ku gis démb Khadim Bousso génn bi mu génn ak wax ju ñaaw ji nga xam ne wax na ko Cheikh Bara Ndiaye.

genn di jiñ Cheikh bare Ndiaye ay doomu ndialo ay nga sacrifier sa doom ak te limi wax xam nga ne yow mi may setan xam nga ne khadim bu sa li wax ay katch la ay katch la dar lu ci deug Cheikh bare fan la bok pourtant Cheikh bare fami bi ñom Serigne Touba mo len defar nabi Vision lu nit dof dof dof xam nga ne dégg sëriñ Serigne Darou Assane Ndiaye Serigne Touba moo ko defar kon bu Bousso su demee ba mën a jiiñ Seex Baara Ndiaye doomu njaaloo ba pare wañu ko naan la ñun ñooy défendre Serigne Touba mooy li ma leen doon wax chaque fois rek gis nga genre bu Bousso yi ak ñi ko wër sëriñ Touba ñoru leen ñun murid yi ñun taalibe yi ñoo war a yeewu. Serigne Touba buñ ko bëggee xam du nit moo ñu koy wax xam nañ ko parce que Serigne Touba bind na bàyyi fi wax nañu dégg bind na bàyyi fi genre yi ku leen topp ñoom ñoo lay dugal chaque jour ci erreur gis nga genre yi li ñu wax moo gën a danger que li Cheikh Oumar Diagne wax nañu waxante dëkk rek parce que wax ju ñaaw ji mu wax wax ko taalibe Serigne Touba wax ko ko bokk ci Serigne Touba Cheikh Oumar Diagne waxul loolu. mais limay wax chaque fois rek sénégalais mo nek na feq sénégalais mo nek naa feq mais xam nga ne wax ju bon ju ñaaw ji ki mën taxaw di ko wax di wo docteur di wo imam ki kan la mat njit ki kan la wara a jité ci juma tok di fen di sos ba aduna bi yep xamna li ngay wax ni ay katch la dara du ci deug parce que lal nañ sa intérêt déjoué nañ sa plan nga toog déchewoo lenn lu dul ay xaste ak ay saaga. Naby Vision. mais bu ngeen jàppee ne nit ñi dañoo continuer di nelaw comme 1960 nit ñi yow nañ de on est en 2024 fi mu toll nii wax ji bari jeeg làmmiñ bu réy bi jëru ko lépp lu waaye bëgg xam ci Serigne Touba en général boo duggee ci internet bi sax di ko xam mooy li ma doon wax rek. des fois nit dila wood wala dila wax ay waxi dof nan la serigne touba tayo ba ngay gem serigne touba fekke ko ba ngay and mu fekke fekkewu ko ba ngoy beug fekke ko mais ma rirando yi genre euh, num tudde ti genre khadim xaadim buso bi nii ay genre tier de mouride ñom ñom neena ñom ñoy jangale serigne touba ñom ñoo lay wax kan moy serigne touba cheikh baradia lim leen wax kay ñew leen tek ay wax dindi li wax mais bu leen fi ñëw di xasee ka saaga. Naby Vision. li ma leen doon wax rek intérêt personnel bu taxawee lépp lu taxaw ci seen wet même boo doon doomi Serigne Touba sax seen intérêt boo ko nar yàq ñu dal sa kaw ñii ay nit yi intérêt lañ bëgguñu Serigne Touba seen bopp lañ bëgg mooy li ma doon wax chaque fois rek ñun taalibe yi ñoo war a def suñ bopp ay nit xam ñan la ñuy topp mais bu dee genre yu mel nii moom wax dëgg fa yàlla ci xaadim bu sa moom. man doyuñu ma quoi matuñu ma njiit te matuñu ma imaam tamit wax dëgg fa yàlla.